tay di juróomeelu guddi ci weeru koor naafila gi ñent raka la raka wu ca nekk da ngay jàng alfaatihatul kitab benn yoon ak alam nashah benn yoon ak suratul ikhlas ñetti yoon loolu mooy julli gi julli gi ñent raka la raka wu ca nekk da ngay jàng kitab benn yoon alam nashah laka sadraka benn yoon qul huwa allahu ahad ñett yoon julli gi nag mbokk yi am na ay ngëneel yu ca nekk te ñu jëlee ko ci téere sëriñ Sohaybu Mbàkke bii di xooratul ayn wax na ne képp ku julli julli gi ba nopp yàlla dana ko bindal tiyaabay ko xaj junni yoon teg ca des na ko bindal tiyaabay ko xongo junni yoon des na ko musal it si ñàkk teg ca bu faatoo des na ko bindal tiyaaba ku dee ci jihaad des na ko jëggal it ay bakaaram des na ko musal yit ci mettitu dee dina am ngërmal yàlla te bu faatoo des na ko ubbil buntu aljanaam mu di ca xewlu di ca xewlu ba bis bu mujj kon lii mooy ngëneel yi liñ njëkk a wax it mooy naafile gi yàlla nañu yàlla may dégg ak ku topp wasalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin wasalaamu ورحمة الله تعالى وبركاته جرنجين جف بها في الدار أفئدة يا مذهب النكدي